ci bi ñaari mbër yaa ngi noonu ci biir géew bi. maa ngi seen wuli wuli. ndeysaan dox nag ci diggante wuli. ak ambulance numéro 2 bu bawol ak ambulance bu gëm sa waajur bu Thiès. ambulance nee na man dama koy yëpp ci ambulance bu yóbbu ko Thiès. ah dégg nga léegi pimpon pimpon <laughs> saxaar gi. <laughs> saxaar gi dégg nga ko léegi. ah waa ñu ne corona Thiès na lool moom ambulance. waaw waaw yàgg yàgg ruñ kum daje Fatick. yàgg yàgg ruñ kum daje ji bi. wàllu ndeysaan wuli am na lu muy wax de lan lay wax lu muy wax Fatim lan lay wax jibi wuli mu ngi fi dajeeg dumbul bu yàggul waaw ndeysaan moo fi dajeeg dumbul bu yàggul ambulance daje fekk armée ah, ambulance daje fekk armée bu colle moom tamit moom i daal di colle ñoom ñaar ñëpp ci defet ci defet te ñuy ñaari mbër yu bokk ci lamb ji waaw ambulance daanaan la Fatim dëgg la ambulance daanaan la day daa mel ni Thiès gën a jik ndeysaan xaw ma nag tey waaw Thiès daal boo ko gën a jik combat yi moom Thiès yëpp waaye day dem. Ah, ambulance bi ma gis Fatim day dem. jibi arbitre ngi wax ak ambulance bi ma gis. maa la ko wax moo ngi wax ak ñoom. day dem Fatim. li làmb nangu ak li làmb bañ. règlement bi. règlement bi moom lay wax ñoom. ambulance bi ma gis. Ah. day dem Fatim. laa ilaha illallah. bu arbitre bi siffle muy dem lu mu fay fekk. lu mu fay fekk. xale bu bëri doole. xale bu bëri doole kaar macha allah. te mën a bëre. te mën a bëre moom wul li numéro baax na. la ilaha illallah. baax na. jibi samedi 13 2019 fii ca stadium Iba Mar. ay Assane Ndiaye bool production sànni lañ naan wure wa dem na këng waxi mag dem dañ daali. Assane Ndiaye production. ay eh, waay jibil waay doon jaay leen bu lamb. ay waay bool production. la ilaha illallah. pare nañu Fatim. pare nañu. arbitre la. yaa ko lay dem. yaa ne woon ambulance rek. wulli ambulance. daje. daje nañu. dañuy daje Fatim. daje nañu xeex ñu ngi mosante. ah ñu ngi mosante Fatou. dañuy xeex. dugub yàggul. jàppante la ñoom ñaar. la ilaha illallah. wuli ambulance. wuli ambulance. ah faqal na faqal na ko. na ambulance ambulance. ambulance yi bëri ci kaw. na def nànk. wuli yi xaar. na def nànk. ambulance jàpp na waaye wuli benn loxo jàpp Fatou gauche. waaye wuli tey bu daanoo lan mooy ëllëgam. musiba la. musiba. la. musiba la. wuli ambulance. wuli féete suñu ndeyjo. wuli ambulance. ambulance moo féete suñu càmm. ay ambulance Fatou lu mu bëgg jëm sa waajur bu Thiès. lu mu bëgg Fatou. ah lu mu bëgg mi ngi koy def. wàcc na ci ay tànk. ah ilaha illallah direction. xam nga ñaari mbër yi kenn loxoom jàmbur ci ngemb. déedéet dañoo songoo ca kaw. wul da koy takk wul da koy takk. wul da koy takk. waaye am na jox na ko wet bëri la. yàgg ba wul sama la ñu am. ilaha ah, jibi lay tiit. ah wóyul la ba ambulance bi la bëri Fatim wala ñu bëri not Fatim. Ah. not lay bëri. Ah, waaye maa bëgg combat yu neex. stade bi ñëpp kontaan nañu. wala ëffalkat yi. stade bi ñëpp kontaan nañu. ay ëffalkat lañu. ay ëffalkat lañu ay ëffalkat lañu ay lañu. ñu ngi ni fekk nag. mais ñu ngi bëri Fatim. waaye ñu ngi ni fekk ji mi. waaw kenn ku ci nekk fi ñu toog ne yaa ngi. boo laalee ñaari yoon dajoo. dajoo da ngay bi. loolu gëm. di calculer nag. mbër du existé Fatim. déedéet ambulance ràcc na ñaari tànk yi. mu léegi visé. mu léegi visé Fatima. ah ma ngay visé lu muy. mu visé lu muy visé da ko bëgg sës ci <laughs> ay da baax. Pape Ndiaye ay dem boobu dayoo ngi noonu. Ndeysaan. borom Malick Faye ama. Malick Faye ama moom benn mos la am xanaa Fatim. ji bi ah, ah, ah, Ibou Ndiaye ñu xabaar sànq nee na ko amateur yi nee na nga way Malick Faye ama. mu bañ koo way ndik ko commencé ko way mu teg micro ba. ba nit ku daaneel mu jël jël beneen way. nga paat nu ko neex ñoo ngi liggéey corps à corps Fane Mbaye tooñ. corps à corps. ah ci ambulance. wuli wuli cokkaas na léegi. da koo bëgg a yëpp. waaye wuli da koo bëgg a wuli. waaw wuli moom da koo a ca ñu xool wu ci am. la ilaha illallah. fi mu ne nii épreuve de force la fay. xam nga dañ ne rankum yaa koy wax. runkum daje. runkum daje. moo tax fi ñu toll nii kenn ku ne yaa ngi yaa ngi calculer. Eh, moo mën a ëffal. ku xam nga ni sa morom di ñam ah. Assane Ndiaye mën a ëffal Fatim. ku ne xam nga li sa morom di saf. waaw ndax fi muy ñoom ñaar ku ci fi nga jógee la Fatim. Ah, wuli lu muy tànte. da koo bëgg a takk. waaye ni mu rasoo ubbi loxo yi. wuli ngi ñoom ñaar yëpp liggéey nañu Fatim. ambulance loxo ma ngi ci ngeen. mais liggéey nañu kenn ku ci ne sa loxo jàpp ci. liggéey nañu liggéey nañu. wuli Wouly ngi door ci suuf jibi ndeysaan muy samedi 13 avril 2019 fii ci stade Iba Mar Diop ndeysaan muy journée Baol production di Assane Ndiaye ah wàcc nañu Wouly lu mu bëgg ambulance ambulance li nga def wóorut. ambulance maa lu ñu njëtt. li mu def wóorut. su ko defaat dañu njëtt ko fa. wóorut wóorut. ñu ngi xaar xaaxum kaw. wóorut ñu xaar ci kaw. wóorut croisé ñu ngi sonante ci kaw Fatim eh plaqué am na tànk yi dafa baax. Ah. remplir nañ seen contrat liggéey na tànk liggéey na tànk yi. remplir yow loolu rek yow ofal kan nga Fatim doom ji ofal kan la Fatim ofal kan la mu ngi rek di mbëllee ñaari mbër. mais ambulance la wuli daanaan la Fatim. waaw ñaari mbër yi la ñu. Fatima dama bëgg làmb Fatima. booy xool nag xam nga. e Babacar arbitre jógal sama kanam. Babacar mi arbitre da bokkatu la sa kanam ah? Fatima. Babacar jege nañu. bokkatu la ci yow. ah. hey eh, ñu ngi bëri ñoom ñaar Fatima. waaye ambulance li def fa joxe wet wóorul. li ngay def wóorul de. dafa joxe bu ñu fiiree rek du baax. muy de. bu ko fiiree du sànq tante ko takk. wulli am na lu muy am na lu muy nas de. waaw am na lu muy nas. sëy bu sottee. ambulance li mu joxe doyuma fa. waaye ambulance ràcc na ñaari tànk. waaye liggéey na. sopp naa nii ci mbër. waaw mbër boo nee ba gis soo loo xam. waaw ràcce na sa tànk diggu sa tànk. waay jibi Touré waay. bëgg naa loolu Fatim. Eh, waay jibi waay waaw dama am mbapat Fatim. waaw da ngaa am mbapat nag. maa mbapat. da ngaa am mbapat. maa ak yow ak Soora waat rek. day ma waaye li ma xëy na mbapat. mbat ma. ah demul. ah eh. mbat ma bu la instauré bu la wéyee la ko. laa ilaaha illallaah waay sama ndey waay ngi bëre waay ñu ngi bëre Fatim kontaan naa kontaan naa Fatim. Eh, bu fi yemoon mu neex ah. na fi yem. na fi yem bëggatuñu. na fi yem bëggatuñu Fatim doy na bëggatuñu na neex na. <laughs> daanaan la.